mbokk yi jërë ngeen jëf euh, di rafetlu bu baax a baax a baax ànd beeg seen sit bi ngeen taamu seen sit bi nga xamante ne saa su ne moo leen di bégal di senclic point com site bi nga xamante dafa ñëw jëm ci actualité politique jëm ci li nga xamante ne moo di wàllug euh, actualité ak lépp te jii tamit wax dëgg yàlla seen émission jotaayu politique ñu am tawfiix laay wax ak privilège ak opportunité parce que dalal jëmm ji nga xamante ni xam ngeen ko loolu min ngeen ko lool seen site nekk jëmm ji nga xamante ni wax dëgg yàlla suñu wëlëra la

ndax hésité woo bi ngay choisir Macky Sall. Euh, yombul nag de waa wax dëgg yàlla nag euh, nit ñi dañ koy wax man ni nag c'est le choix le plus difficile ndax euh, ñu bëri xam nga rek boo toppee ñun ndaw yi nekk ci réseaux sociaux yeeg ñuy wax yépp nga ni ah kon de président ah kañam bi nag dina xaw a métti trop trop trop trop waaye xam nga lépp loo gis rek liggéey la parce que président non seulement moom il a fait sa campagne tout seul gis nañ ko bu baax mu yéeg wàcc wax dëgg yàlla kooku mom sénégalais bu né mën na ko nangul lool dal parce que tamit euh, nit ki dee koy waxal dëgg donc euh, liggéey bi rafet na campagne am et tout man tous les jours j'étais motivé dem xol di journal de campagne bi xol xol xol fi muy jaar xol nak candidat yépp nag dé la doon xol way wax dëgg yalla nak campagne na té tamit tamit mom mm, ak par rapport ak yeneen yeneen candidats yi da ngay sétlu bu baax ni président Macky Sall dafa bëri ay nit parce que fépp fo duggu euh, koñ bu nek zone bu ne da ngay gis ay nit yo xam localement dañ ko soutenir diko ko campagnal di porte à porte di def ay affichage bâche dugg caravane meeting dem dugante ak nit ñi waxtaan ak ñoom donc euh, au final dal motax euh, ndam li dal ñoom foog naa loolu la daal nañ si sant yalla bu baax mais lepp lu way jublu rek liggey ko liggey bu set sa xol set ci te mu leer na li lay motiver rek moy wax deug yalla defar rek pour mu rafet et puis jàppale nit ki sans sans yi def ko ndax sa dëkk nga bëgg am nit muy sa leader nga gëm ko jàpp si lool si gëm yàlla la bokk donc euh, man tey mën naa ne njiit laa fa may liggéey ma yore yor naa ay nit ñu bëri yu may liggéeyal ak yooyu yëpp waaye balaa may doon tey jii nii njiit fa may liggéey dafa fekk ma commencé tamit doon doon ndongo daara di jàng ba egsi fii

waye nak du né ne ñëpp àndoon nañ ci mais bon la partie bi nga xamné dal wax dëgg yalla ils avaient dit non lool waru nekk ak yoy bon gis nañ leen wax nañ tamit euh, suñu militant lañ tamit dañ koy nangu rek xamné ay critique la waye tay lool yëpp wess na limay ñaan rek moy ñun ñëpp nak ñu tasewaat muy samay militant ñak nek samay militant muy militant APR wala fo mënti doon nekk rek xamal ni léegi nag sénégalais nga te liggéeyu Sénégal daal moo si moo des daal te ñun ñëpp ñu xam ne benn camp rek la ñu am nag histoire beeg xiiroo beeg ŋaayoo beeg yooyu yëpp jeex na wax dëgg yàlla nañu nañuy ñaan jàmm jàmm jàmm ak jàmm ak salaam loolu daal la ñuy ñaan. mu mel ni tamit sa candidat bi nga doon président Macky Sall mu am ndam euh, Sénégalais yi plébiscité ko ci 58 virgule 27 pour cent mu mel ni euh, président noo jàngatee ndam li. ah xam nga Sénégalais yi dama ni 66 pour cent foo ko déggee muy record mooy que Sénégalais yi bëggoon nañ nag. bés boobu nag bëggoon nañ dem voté ji wax dëgg yàlla bëggoon nañ vraiment exprimer wu wax dëggantaan lan moo nekk ci seen biir xol ndax xam naa ni ku ci nekk tamit boo seetee tey euh, campagne bi y avait beaucoup de campagne à charge te nañ tamit une bonne partie nag di critiquer le le le président critiquer ko critiquer ko critiquer ko xam naa loolu tamit laal na ñu bëri ñoo xam ne ay nitam lañ yoo xamoon ni yaakaaroon nañ ni que sax élection yi garaaw nañu toog mais finalement ils sont dit non foog ñu jóg tamit. wane ni mag Sall am na ay nit noonu tamit lañ jógee te sénégal yi globalement ku si nekk tamit bëggoon nga dem supporter sa candidat wax dëgg yàlla nag euh, combat bi métti woon na difficile woon na c'était un travail à dañ ko waroon def avant sax que si campagne bi la xeex bi gënoon métti loolu yëpp fu ñu war a taxawee fag naa ku nekk taxawal nga fa sa parti politique ku nekk jàppale nga sa candidat mais tamit comme li ñu wax rek n'importe quel kii boo gis rek xiiroo boo gis wala lu mu mënti doon rek foog mu am kenn koo xam ne mooy le vainqueur laal te kooku tamit ki gën a liggéey ki gën a gën a gën a joxe boppam ku gën a gën a touché population bi wax dëgg yàlla sénégalais yi moom en masse kenn mënul ne sénégalais yi seen carte manqué na fii wala lii non non non sénégalais yi moom ils ont répondu en masse ñëw nañ tànn nañu te tànn bi leer na nañ ba nga xam ni soxlawul sax tey nit di si andi lu mu si wax moo tax benn recours sax amul parce que ça a été choisi wane nañ ko té respecté nañ sen cadeau ndax euh, bu fekkone dëkk bi xam nga ko fi sénégalais mom ah, bu fekkee tannu la mom fi kenn du fi accaparer dara ku ko fi nara def mom ñin ñi ñoy jóg wax ak yow donc euh, sénégalais yi nangu nañ ko wane nañ ko té sant yalla gis nañ tamit euh, yenen candidats yëpp ils ont appelé au calme té lool tamit lu jar lu la ñom ñëpp d'ici si félicité ñëpp je sais que perdre c'est pas facile tamit waaye tamit ay camps yu bëri amul daal nañ nangu rek ñun ñëpp léegi ay sénégalais lañ politique bi jàll na léegi heure liggéey moo jot. lu mel ni euh, revenir par exemple ci ñu gis taxawaay bi nga am ci ci ci sa si bureau de vote au niveau de Diamalaye nga am fa victoire bu éclatante. qu'est-ce qui explique euh, ce secret tamit lu waral par exemple ndam li nga fa am ak tamit euh, confiance bu ñoom bu ñu def ci yow dëkkuwaay boobu noonu. Mm. xam nga jàmmalaay nag man falaa falaa màggee donc jàmmalaay yàgg nañ fa yàgg nañ fa trop xàmmee nañ ma fa xam nañ suñu waa kër gi yëpp te du jàmmalaay kese am na waa Cité Poste am na waa jii Djily mbay am na fépp foo xam ne rek sénégalais yaa ngi fa te ñu am fa ay militants ñun am nañ ay militants bàyyi Argentine Brésil am nañ Chine am nañ fa ay nit am nañ nit un peu partout amul daal fépp foo xam ne sénégalais amu fa te tey électeur amu fa te amuñ fa benn base boo xam ne ay nit a ngi fa nekk tamit di. di ñu di waxtaan ak ñun di xës di sottalante xel daal entre ñun jàmmalaay moom dama ni euh, c'est tout à fait normal ndax foofu noonu nit ki fa nga dëkk tamit fa nga mën a naka lañ koy waxti fa nga mën a baaxoo bien que je di souvent que jàmmalaay tey jii nii euh, sama yaay loolu laa koy ne ko jàmmalaay yow mama yow waa jàmmalaay nga jënd nga sa kër jàmmalaay man sama kër maa ngi ko jënd euh, cité kër góor gi waaye ñin ni jàmmalaay lañ ma xam donc da ngay nangu tamit ni fala dëkk ndax sama bureau de fala fa nekk donc non rek digënté yaay dom bu bu buñ nekkee di waxtaan yooyu ma koy waxtaan ne ko nag waaye jàmmalaay la ko doxal ndax yow mi ya waron doon représentant sa base la waron doon mais dina la ko doxal ñëw nak di rafetlu rek taxaway wa jàmmalaay parce que fofu tamit nañu wante dëgg yombal nañ mako trop ñum fa fekk ñom ma ngi sant ñom Serigne sar ñima jangal alcorane euh, imam Guèye di sant tous les chefs religieux la la communauté chrétienne tamit ñom tata margo ñom tata Madeleine di di remercier aussi les jeunes ñom Ablaye Bari et tous ses amis les jeunes du yi nga xamni sen mak la andal do sen papa sax la doon andal wara mëna a toll si ñoom bàyyi tey jii nii waaye ak ndax tamit même défier la rek yefu jeune la ñu japp ci et puis tamit di remercier wa APR yi sur place tamit yo xamni fekk nañ tamit ñu def liggéey bu rafet rafet rafet ñu ci japp tamit xamni rek Sénégal eh, jamalay mom ak Cité Poste ak euh, te Djily mbay yëpp benn la ñun ñëpp benn la ñun ñëpp bokk même aspiration te bariwuñu ñun mënuñu fal mënuñu fal ñun kese mënuñu fal député donc li si xew am mooy que ñun ñëpp ñu war a xam ni que rek ni que il faut que ñu jàppandoo tiirandoo xàccandoo dóorandoo nga xam ne su boobaa li ñu bëgg mun moom moom mooy am suñu biir gox te incha allah. Euh, ñu ngi koy commencé gis ndax tey jii nii euh, fépp waaye dem di nga xam ni que jàmm ba HM Granville wala parcelle amoon ay homme politique tey jàmm laay cité poste ak kii am nañ homme politique ndax kenn mënu ma ne panna campagne bi dugg nga ba génn nga te gisatoo fa trace homme politique ndax on a affiché partout wàcc nañ dox nañ que meeting nañ fa caravane nañ fa porte à porte nañ fa nuyoo nañoo association wu jeunes yi femmes yi bàyyiwuñu kenn dégg nañ nag seen ay euh, seen ay. attente xam naa ko bu baax lépp lu jëm si problème mu suuf si ndax suuf si bëri na fa euh, xam naa ni problème agression yi ndax euh, problème sécurité yi problème saleté bi tamit ñu ngi siy wax wax nañu tamit problème mu euh, naka lañ koy wax te chômage yu jeunes yeeg yëpp tout ça on a pris en compte te yàlla xam na ni que ñu ngi jéem suñu kéemtu yàlla yu kam kattan même bu fekkee tey seen moyen limité mooy moyen mouvement bi moom la ñuy si mom la utilisé utiliser mais au moins on a posé des actes ndax yone nañ fa camion yi grâce à c'est l'occasion de remercier mon grand frère euh, Lansana Gagny Sakho jàppale nañu pour ñam ben camion à wa Cité Poste qui a vider fosse septique yi ci waaj sax phase ñu ngi doon bëgg dund suuf si waaye dégg naa ni que si anam yu néew ni que incha allah mairie bi prévoir na pavage foofu ce qui est excellent mooy que donc suñu liggéey am na tuuti njëriñ ñun ñaa ñuy déglu ñu ngi commencé jël en conte tamit considère jël en considération tamit suñu suñu gox yi léegi mu dese ma côté sécurité bi loolu maa ngi koy dox et puis côté emploi moom incha allah si fan yu néew may naa leen ay bourse pour ñu mën a former yenn jeunes yi mais bëgg naa démarrer benn.

président Abdou Wahab ñu gis ni ginnaaw élection yi président Macky Sall def na conférence de presse ngir euh, waxtane walu dialogue ubbi ay buntam ngir képp ku nekk ci way ku jege ak ñëpp ñu ànd ak moom jëm ci dialogue ak moom ngir euh, Sénégal jëm ci kanam d'abord président nu gisee appel au dialogue président Macky Sall bi. déjà appel bi foog naa bi mu ko defee on fait partie des premiers je pense leaders politiques yoo xam ne même sur notre compte principal Twitter on a répondu pour dire que ñun on accepte cette main tendue ndax tamit. Euh, instant élection yi jeex na moom mooy président de la république c'est le père de la nation donc c'est normal liggéey mooy mu dajalewaat ñëpp xool naka la ñuy liggéey dëkk bi pour mu avancer donc euh, bi mu defee appel bi ñun on a accepté cette main tendue te loolu képp kuy sénégalais waroon taxaw sax di xaar loolu mais bu fekkee tamit moom def na ko c'est encore mieux kiyam la rek sagam la moom daal donc euh, na xam daal incha allah soit la manière bi mu nar a jël ñun mom dinañ ci japp ndax ñun ñoy ndaw dëkk bi te fakk na bépp ndaw bo xamni ni conscient nga te xamni ni sa dëkk mo la ñor te nga xamni ni yow lepp li nga xamni ni la yëg taxa jog moy sa dëkk jappalé askan bi génne len si ñàkk ak tumuranke ah génne len nak lañ koy wax di suqali dëkk bi wax dëgg yalla fépp fo déggé nit di la wo né la kay japp ci war nañ faté ni man fi la bok wala ki fi la bok nga ñëw ñun ñëpp ñu japp ci inshallah allah suñu dëkk ndax suñu dëkk la ñoko momal suñu bop donc bu défaral

boobu ba léegi nii malgré que am na ñu si d' accord woon pour ñu ànd ak président Macky nit ki nag un vote doit être utile boo xoolee am sa am sa leader politique te warul moom dese lu dul moom demul mu des lu dul tànn war na mën a ràññee fan la sénégalais yi bëgg bokk ñan la sénégalais yi wóolu ñan lañ bëgg àndal te bi ñu xoolee ak programme yi programme président ak suñu programme méngoo si ay anam yu bëri ñu ne donc léegi nañ ko jàppale léegi nag terewul mouvement la woon ndax ñu ngi doon dem présidentielle waaye léegi dañuy monter suñu parti suñu parti nag bu paree bu kayiti buñ ko jotee ñëpp dinañ ko xam dinañ ko dégg mais xaman daal ni que politique bi daal incha allah ñu ngi fi suñu suñu suñu suñu suñu suñu volonté daal mooy tabax Sénégal Sénégal boo xam ni sénégalais bu si nekk di nga si gis sa bopp daal. Hmm. da ngeen nar a wéyal ànd ak président Macky Sall euh, boo leen créé parti politique da ngeen di continuer si mouvance présidentielle bi. fi ni suñu choix dal c'est le président de la république bëgg trop nak jappalé ko saa mom ça commencé nañ ko parce que tamit nit ki boko gissé tamit xamni ni que moom n'a nar a suñu destiné ak yooyu parce que man képp ku ma xam xamni sant na Yalla ñi ne non euh, fay wuti poste fay wuti li man jiital na nit yu bari bari bari. kuma xamul tamit na jël temps rek dem séti xamni man sant na Yalla bu baax foofu ndax période bi may ñëw fi ni ay dizaine de millions laay perte yoo xam ne tey su ma toogoon liggéeyal ko sama bopp jël ko dencal ko sama bopp waaye déedéet dama bàyyi fa ma doon liggéey bàyyi sama liggéey bàyyi sama njaboot bàyyi sama jabar ñëw fii nii toog jël sama xaalis dugal ko woo ay doomu Sénégal ñu jàppale ma ñu joxante loxo liggéey def un grand sacrifice loolu képp ku gëm sa dëkk du da ngay toog fële rek nekk di woy woy wala wax wax yu bëri dang kay koy ñëw wane ndax tey jii nii dama bayyi lu bari donc sacrifier lu bari ñëw tok fi pour japp pour jàppale jeune yi donc côté bobu noonu nañu ni xamni que nekuma fi pour daw pour wuti quoi que ce soit wanté lepp lo xamni ne tey jii nit denk na lako ko nga kaay liggéeyal ko sa dëkk mais kok sa fierté lay doon da nga war waro tax taxaw sax ñu xaar ndax solo poste limay def ni rek liggéeyal dëkk bi la ndax la fee génn war mëna mën a wax ak ñun woo ay jeune conscientiser len waxtaan ak ñom wax ñom waxu programme wax ak waxu emploi xool naka lañ leen di former jappalé leen monter entreprise créer emploi ba paré feug dem xol ñi nga xamni am nañ ay projet tamit xol naka lañ leen di jappalé animer ay séminaire dem dem répondre aux aux invitations xol lan lañuy def déjà l'après-midi ma ngi ni di dem Canal Olympia parce que li may c'est la première série bo xamni tay tey Canal Plus moko ko produire pour des pour des pour des premières séries ouest africaines bo xamni ay sénégalais koy je ma koy gën a l'oreille rek ndax canal tey jii man liggéey nak ñom ñoom pendant 15 ans man actionnaire l'a si les lu mu doon tey jii nii bouquet bi même 0,01 pour la man liggéey nak ci ndax jël na ci ay sénégalais yu bari jappalé leen ci ñu dugg fa liggéey fa am fa ay poste de responsabilité et puis joxé fa sama idée ba tey jii nii jeunes yu bari ñu ngi fay quelqu'un di liggéey quel qu'en soit l'emplacement fo nek ci continent bi euh, am na si yenn yoo xam ne suñuy réflexion depuis 15 ans di leen di liggéey ak ñoom depuis 16 ans moo tax ñu dem ba xalaatee Afrique naka la war a doxee naka la ñu war a changer yenn programme yi naka la ñu war a def au niveau des recrutements truc tout et tout ñun ñoo ko liggéey man ak sama yeneen homologue africain loolu suñu participation la ak yeneen yeneen marque boo fi jël tey jii nii liggéey na ñun. Nous na si ñun les plus grandes marques ah, nga jël Samsung liggéey na man xam na bu baax xam na samay samay participation et c'est des leaders mondiaux que ça soit donc Canal Plus que ça soit Samsung que ça soit les fabricants de téléphones ku mu mënti doon lu mu bon bon jot nga liggéey ak ñun parce que ñun loolu lañ xam créer de l'emploi, créer de la richesse jàpp si pour Sénégal xam ni que sénégalais yi ñun kese euh, mënuñu dem foog ñu laajte expertise à gauche à droite ñu jàppale ñu pour ñu mën si génn. te lépp loo xam ni yeneen dëkk yi mën nañ ko rek ñun sénégalais mën nañ ko ndax ñun ñoo ëpp chance ndax ñun ay jeunes rek ka fi ne jeunes yi laaj ñu lu dul liggéey jeunes yi bëgg liggéey moom ñu ngi fi subaak ngoon di ñafe subaak ngoon ku dégg ba ca mais nag dañ soxla ñun ñi dégg leen tuuti tamit loolu moo tax ma ñëw xam ni que si ñoom laa bokkoon si laa jaaroon ñu may xeeb faalewuñ ma may ñafe nànk-nànk ba egg si tey fi ma egg si nii donc lépp képp ku la xeeb képp ku la faaliwul ak yooyu amal sa jom sa fulla rek kon ne li ngay def rek ndax ñun moom Sénégal moo demee noonu daal ñun daal am na si ñoo xam ne bëgguñu ko tekki ku dem bay tekki rek ñu dugal si wax wax bu ñaaw wax lu ne bu fekkee euh, say waajur la ko jox ñu ne fii sa papa la bu fekkee danga nga tekkil sa bopp ñu ne nouveau riche la wala daf ko sàcc wala góor jigéen la wala euh, franc la tout le temps day am kii loolu nag warul tax nit complexé boo mënee liggéey ba amal sa bopp wane ko fièrement ndax sàccoo ko kiiwoo ko da ko liggéeyal sa bopp mm-hmm. allah moom mooy doon suñu combat. am na solo président mu mel ni euh, fekkee président woon na ci prochain attelage gouvernemental bi wala prochain si wàllu euh, sa compétence ngir nga jox ko Sénégal yow sa ban taxawaay nga ci dara am noppi nga ngir ànd ak moom. dama ni man nee naa la xeebuma dara euh, tey jii nii lépp loo xam ne tey Sénégal président bi nga xam ne moo ko jiite yaakaar na ni. bépp sénégalais bu mu doon wax ma sax waxam ndax dafa ànd ak moom mais bépp sénégalais même nga nekkoon ci opposition mu ne la yow mii yaakaar naa ni war nga mën a def lii ah su boobaa de bu ma doon ma nekkee à ta place war nga bàyyi lépp ñëw jàppale ko ndax euh, liggéeyal sa dëkk moom amul wax dëgg yàlla amul njëkk loolu moom le vrai patriotisme mooy loolu liggéeyal sa dëkk loolu la ñëpp di ñaan man bëgg naa keroog euh, bu ma demee ba retraité ba sama doom yi dugg sama biir saal xool ko comme ni sama maam yi defee ko ndax man dama màgg ci famille yu mel noonu dugg fa fekk fa décoration yépp légion d'honneur rek muy sénégalaise muy française ak yépp ñu fekk fa ay décoration croix de la guerre Or national du Bénin yooyu yëpp dañ ko tàmm gis ndax euh, j'ai grandi dans une famille boo xam ni ay liggéeykat lañu man sama yaay sax dañ ko décorer donc c'est qu'une continuité ëllëg ñu liggéey ba dëkk bi reconnaître la ko bu la ko reconnaître tamit tamit nga xam ne ñëpp ñu décorer ñëpp mais au moins yow xam nga ni am nga leen loo xam ni liggéeyal nga ko sa dëkk daal. am na

Euh, mbana lañ fay teg su ba ngoon ku ñëw xamul ndax fii nga dëkk wala ku mu fa fekk dañu lay jox nga lekk dañ lay jox nga naan donc loolu dañ ko màggee euh, boo demee ba ci dem boo demee ville di nga gis ni Tooba Jaaj mooy sama maam kooku dafa amoon sax euh, kii sonnette dañuy taxaw woo la ne la kaay nga ñëw ñu ñu ne la kaay lekk sama côté maam bu góor tamit Mohamed Cinq fofu sans sans maam yaay Fatma Baye mu bi fa nekkoon tamit ñep xam nañ ko man tamit diko ñaanal yalla momi tamit fu mu tamit même chose day wo ñu ni danga bokkoo d'al ñun ñun dal lool lool lañ xam dal on a été éduqué comme ça donc tey jii nii boo demee ba yalla wërsegal la nga am yenn te man may may yëngatu nak ci affaire u tablette ak téléphone ak yoy yëpp mani éducation parce que peuple lepp lo gis li tax peuple di rawante éducation kese la du leneen ah ku dëkk bu la ëpp yar boo xam ne ñit ñi yar nañ leen jàngi nañ école wàcc nañ day ci ñoom ñëpp wàcc nañ dëkk boobu moo lay gën a avancé loolu moom amu loolu moom c'est scientifiquement prouvé moo tax dëkk loo am del del dee ko def si jàng bi donc du coup ma xam ni foofu laa mën a jàppalee xale yi jël ay tablettes jox leen ko xool pour habituer leen parce que le monde qui va venir là c'est un monde boo xam ni euh, ça va être carrément digital parce que foofu lañ jëm donc ñu teel jël avance donc école yi nga xam ne seeti nañ leen surtout je maa ngi fi profité du nuyuwaale waa école Corniche Saint-Louis waroon naa leen defal remise yi tablette yi egsi na waaye ba léegi jaaruñu def ko euh, ginnaaw Thiès aussi on a fait la même chose Vélingara on a prévu Dakar fini on a offert aussi à l'école de Diamalaye sans compter les différents jeunes associations ou mouvements yi nga xam ne ñu que c'est assez pertinent ñu jox leen ko ça permet à des enfants yoo xam ils n'étaient pas outillés pour voir ce que c'est l'internet pour voir ce qui se fait ailleurs tu leur offres une fenêtre vers Donc, l'un des di may le buntu boo xam ne dinañ gis li nga xam ne moo moom moo am bitim réew ak foo foowu xale jàng-jàngu ak yooyu ñu daal ne bon nañ commencé jàppale xale yi donc euh, si si si si si appareil informatique ndax euh, moom mën na remplacer livres mën nga dem ci biir livre boo bëgg du moment am nga internet lépp looy wër rek mën wër rek mën nga ko am mhm. donc au lieu ñu def ay bibliothèque maye ay livre ak yooyu ñu ne xaar ñu maye ay tablette donc on l'a fait et c'est beaucoup apprécié ñu siy sant yàlla bu baax di si bëgg xam ni ko wax dëgg yàlla xeeb nañ ko sax mais en tout cas on va faire le maximum pour continuer à soutenir les l'enfance en tout cas mhm. am na solo mel ni ginnaaw euh, xale yi tamit jigéen ñu nekk ci weerug euh, mars keroog 8 mars dañu célébrer journée internationale de la femme ñu nekk tamit ci weerug jigéen ñi mm-hmm. président Abdou Wahab Dounge ñun taxawaayam si jigéen ñi ak tamit kàddoom jëmale ko ci ci képp kuy jigéen ci àdduna wërngal képp jigéen ñi moom man ñun ñëpp moom buñ bul woon jigéen yi du ñu nekk fi ñu nekk nii man déjà moom si loxo jigéen yi laa jaar ndax maam bu jigéen bàjjan après sa yaay parce que da doon jàngi dellu si waat instant yooyu bi may gën yor ba maa ngi am sept ans wax dëgg yàlla j'ai passé la ma vie en tout cas entre les mains des des femmes

waaye nag. Euh, <laughs> ah nee naa ko yow bi ngay ñëw sax si lañ ma dàq liggéey nag si laa bàyyi doo dootootuma salarié depuis lors nag si laa sant yàlla tamit parce que depuis lors tamit ba mu juddoo ba tey tamit ma continuer samay affaire bopp yàlla may ma si un certain succès. Mm-hmm. mais xam naa ni daal jigéen ñi daal ñun Sénégal war nañ si góor góorlu bu baax ndax suñu jigéen ñi nag. xam naa ni dañ naan ñu ngi leen di suturaal ak yëpp mais jigéen yi souffrir fii tamit bëri nañ trop que ça soit seen biir ménage yi ñuy yëkkati seen loxo si jigéen yi di leen dóor di leen tuutal wala foog ni que am na yenn liggéey yoo xam ne jigéen rek ko war a moom wala jigéen warul def yenn liggéey yi wala jigéen dañ ko war a suufeel ak yooyu yëpp daal tax na daal préjugé yoo xam ne day tax suñu moitié population ndax gis nañu jigéen yi c'est la moitié c'est des femmes bu fekkee utiliser wuñu leen day mel ni Sénégal tey ay demi personne fi ne ndax euh, ku si nekk euh, dëkk yi dañuy concurrence rek dëkk boo xam ni moom éduqué na population am yëpp forcément moo lay mën dafa mel ni rek ngeen di sotoo yow boo ñëwee ne góor yi rek ngay andi kee andi góor yi andi jigéen yi jigéen yi mën a xeex comme góor yeeg yooyu yëpp yàgg-yàgg nañ ci dóor moo tax nag jigéen yi nañ koy xoolee si sport bi rek dama naan ndam yi nga xam ni équipe bu basket mën nañu ko andil fii nii bu ñu ko xale lu góor yi mënoon andil kontaan na ñaata coupe d' afrique la fi jigéen yi andi donc euh, wax dëgg yàlla jigéen yi bu ñu leen defee si situation yu baax rek foofu fépp fu ñu siggiwee rek jigéen yee tax nar a tax ñu siggi donc daal man je je je cultive ça daal góor ak jigéen daal wax dëgg yàlla dañu war a leen xam ni que amul kii moo kii sut kii déedéet déet nit ñi ñoom dara rek la ñu sutee si si liggéeyal dëkk bi respecter la loi ak njëriñ bi ñuy amal askan bi loolu daal lañu nit war di rawante mm-hmm. amna solo mel ni jigéen ñi bu ñu ko déggee daañu kontaan loolu ci président Abdou Wahab Bengelloune mu mel ni président waxtu bi xoj nañu fi mu ne wax dëgg yàlla waxtu bi xoj nañu mel ni euh, président bu fekkee am nga message booy lancé ak sa kàddu gu mucc jëmale ko ci ñëpp laay wax ndaxte élection yi tamit am na ñoo ko àndal sa mouvement beeg ñëpp benn message lay doon ak tamit askanu Sénégal àdduna laay wax ñëpp ci ñi lay suivre fi mu ne. ah di remercier déjà sénégalais yëpp ci taxaw bi ñu taxaw ci élection présidentielle yi nga xam ni moo jàll léegi nii bi nga xamni on l'a fait ben ciow amusi tout s'est très bien passé alhamdulilah euh, ñin ñi dem nañ voté ji ndax loolu lañ bëggoon euh, ma siy remercier Sénégalais yëpp fépp fu ñu mënti doon Sénégal ak waa diaspora euh, diaspora nag man si laa bokk léegi depuis mën naa ne 4 mois 5 mois laa commencé stable fii waaye xamal ni que rek tamit que mm, Sénégal ñun ñëpp ko moom kenn waru fi woote wax bu ñaaw saaga ndax loolu temps yi nag xam naa ni duñ si wax lu bëri mais foog kok nak nit ñi am ñu wax manam des fois nga dégg wax yu ñaaw jëmele nak tamit ci ay autorité fi ñun ay sénégalais lañ waruñu di rafetlu loolu war nañ dépasser loolu am nit ko xamné même bu fekkee du nit ki sax nga koy waxal mais sa sa yar sa bopp yow ndax man euh, dañ ma yaree ni que am yenn yo xamné doomu nit ku yiw war na ko jom mu génn si gémmiñam donc lépp looy def rek xamal ni wolof njaay nee na wax bu ñaaw dëkkul fa mu jëm fa mu jóge la soqee ko te loolu nit ki war nañ gën a def effort si si si si loolu sàmm ko ndax Sénégal àdduna dafa may tànk day dox ndax xamoo dans dix ans dans vingt ans si lu mu lay fekk wala sa doom ëllëg dina ruus sax taxaw dégg ni keroog ba ñuy def yu historique nga xam ni moo doon xew Sénégal ak yooyu jàbbal sante boobu muy élection yeeg yooyu man tey samay waajur lii lañ si doon wax ak wax bu ñaaw wala lii ak lii ñun war nañ jomm loolu may woo rek sénégalais yëpp ñu ñu ñuy balaa bu ñu jotatee beneen information nañ ko vérifier xool ko xoolaat ko bu baax ndax jamono ji nii yéen ñi journaliste xam ngeen ni fake news yi bëri na si biir dëkk bi am na ñu koy monter xaw ma lan moo tax ñu koy monter mais loolu noonu bu yàggee dina tax Sénégal daal ñi ni dinañ merante di xiiroo di ŋaayoo te li si ëpp ay nit yoo xam ne bëgguñu seen dëkk ñoo fay nekk di ko fabriquer di ko monter xamuñu sax fan lay jógee man daal li ma tàmm ak li ma namm mooy kon ne gisaat sénégalais yi àndandoo doon nekk benn c'est-à-dire am respect respect mutuel suñu biir joxante cër parce que loolu dafa am solo yaa nga gis sa morom sa sa moroomu kilifa nga jox ko kiw kilifa loolu loolu dafa am man terew ma bu ma meree man samay kilifa mënoon naa toog samay wax ma dara wala sam papa ma xam ne lii ma si kii ak yooyu mais ak wax ak teggin wax da nga woddu nga wax ak moom waxtaan ak moom nga ko lii ak lii ak lii mu wax la lan moo tax parce que noonu lañ ma yore da ngay waxtaan loolu mooy tax nit ki bu mu demee ba màgg bés bu gisee loo xam ne argument bii nii d'accord su mu mën ko défendre si kàddoom mais pas si wax bu ñaaw ndax nag wax bu ñaaw moom alalu ñëpp la ñëpp mën a wax wax bu ñaaw mais ñi koy bàkkoo rek mooy amoo leneen loo bàkkoo ndax boo amoon leneen loo bàkkoo saaga kooku ñëpp mën nañ ko def loolu moom képp ku koy bàqoo rek wala di ko génne rek moo ko yow amoo leneen lu dul loolu maanaam li ñuy wax rek manque d'argument la mais nag euh, may continuer nag di remercier nag globalement sénégalais yëpp dans leur ensemble la grande majorité bi nga xam ne ñoom comprendre nañ enjeu yi fii soxlawul xiiroo soxlawul ŋaayoo soxlawul xeex soxlawul dara grand dama bëgg ngeen seen seen journaliste yeeg yooyu ngeen continuer œuvrer dans la réconciliation des sénégalais

lu mu métti métti bato yi moom bu suuxee suñu bato la bu ñu ko suqalee suñu bato la donc ñun nii nii gaal gi ñoo ko moomal suñu bopp nañ jéem a def tout daal incha allah demee daal ñu bañ a ruus te bu ñu nekkee ñu ne Sénégal ku ñu ne sénégalais nga nga fier foo mënti taxaw nga ni oui je suis fier d'être sénégalais loolu daal moo am solo naa daal. Euh, fofu dal lay wàcceeg sen sen auditeurs yi di len di len remercier di remercier ñaar ñi nga xamni je pense c'est la deuxième fois ñuy ñuy rencontrer wu pour euh, pour euh, pour interview di rafetlu nak sen liguey encore une fois merci beaucoup merci d'être venu nous rendre visite. mu nekkoon entretien exclusif entretien particulier lay wax bu ñu amoon ak président Abdou

Sala Samba ci walu montage bi ak équipe Senclic bi yëpp wax dëgg yàlla jàppale ko si ñëpp ñëpp jaajëfal bu baax Jeylaani ci walu coordination maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax a baax leen jox dig daje incha allahu rabbi yàggatul ci lu gaaw beneen fan ak benn leader politique seen émission jotaay politique jërë ngeen jëf